good afternoon good morning fii ba tey ñu ngi ci morning California time welcome to Bintakujabi Kujabi page a queen of a crown council of HIM Empress Shiba Queen Shibara III a kingdom throne governor general of Sheba di leen nuy yéen ñëpp ñi connecté di déglu wel tey dañu ne ki ut wax wax boo koy ut di ka woo bés bu la wuysee day fekk pare nga pour recevoir foofu ak nit kiy woote wax day fekk nga pare wel coowal usmaan Sonko ñu naan ko Ousmane Ajuma Sonko Sénégal boori wax dafa am ab xam wax dafa am te bay woote wax ba wax wuy si la day fekk ngeen pare pour jot tontu dangay gis ay nit toog ci plateau di naan Ousmane Ajuma Sonko dafa bàyyi ay jabaram dem dugg Sweet Beauté ça di dire da ngeen doon ut wax ut coow te yéen a gën xam ne la ngeen di wax nii dafa nekkul wax bu nga xamante nit da kaa war a jël di ko tëggee ay nënd di def bruit tey dinaa leen tontu wax bi dafa yàgg génn ngeen ni coow de di ngeen di wax rek di mbow ay comme ku xam visionnaire nekk missionnaire ba ñu xamee ca njëlbeen lu waral lii dañu ut côté jàmm bi di ko appliquer di naan lii di naan laa waaye comme que dañu ne nit i faut nga bañ sa bopp nga mën di appliquer lépp liy yàq da ngay bëgg sa bopp nga mën di appliquer lépp liy defar donc ma xool ne sénégalais yi ñi bañ sénégal ak ñoo fangaare na doxat fajar affaire ciow Ousmane Sonko Sweet Beauté bu dee Sweet Beauté kese la ñu war a wax sénégal fa am ci Sweet Beauté dafa ëpp jeexalu ko ci Ousmane ajuma Sonko demul jël daayira yi mu transformé ko def ko Sweet Beauté di ëmbal di bañ Ousmane Ajuma Sonko demul jël ci place santé yi mu transformé ko def ko Sweet Beauté Ousmane Ajuma Sonko demul ci place diplomate yi ci bureau yi mu transformé ko def ko Sweet Beauté Ousmane ajuma Sonko jëlul auto particulier wala limousine transformé ko def ko Sweet Beauté Ousmane ajuma Sonko jëlul plateau télé yépp transformé ko def ko Sweet Beauté Ousmane ajuma Sonko jëlul église seen jumaa yi transformé ko def ko Sweet Beauté Ousmane Ajuma Sonko dafa déplacé jóge këram bàyyi fa ñaari bëjjën ñaari soxna mu dem fa sëram yi ubbee business di ci jàppandiku di ci dundal seen njaboot di ci yokk ci économique Sénégal mu dem fay leen ñi ko dampal ko yaramam ci ginnaaw ku nekk ak sa métier te métier bu réussir rek say nita la ko réussiral Ousmane Ajuma Sonko mooy pire doomu Sénégal di développeur fekkul fu baax nekk yàq ko teg ko neneen ci ënd koo Ousmane Ajuma Sonko lu mu def wan leen ma ban moo buggee noonu Sénégal di wane ngorom ak ci mbëggeelam ci Sénégal Ousmane Ajuma Sonko demul Sweet Beauté parce que dafa bëgg a dem def Sweet Beauté Ousmane Ajuma Sonko boole ni compétir ak moom ci ay ñaawteef fa ngeen jublu du foofu de non ndaxte da a bon parce que ku bon kese te nga bañ senegaal bañ sa askan mooy fekk ay jigéen yi toog ubbi seen place di liggéey employé ay xale yi fay liggéey tey nar a seen bopp jàppale seeni waajur gëm seen bopp wane ne ñoom ay doom Sénégal lañu ku bon kese ak ku bañ dëkkam kese mooy gis place mu baax moo xamante ne fii dañuy daan seen doole mun naa dinaa ko ku yàqu ko parce que kooku yàqkat la mooy ba ngeen demee de def seen yëf yi salte yi dem jël suite boote ba li nga xamante ne liggéey leen tax a jóg ngeen transformé ko bu ko def blackmail fan nag dara sottiwul te gis nga nit benn la dara soo ko bëggee def sottiwul rek bàyyi sooy foncé da gën a gaañ sa bopp coow li du Ousmane ak ma Sonko coow li maa yena fekk si naa leen dangeen a yàgg mbow nag ma toog di xool parce que jàmm gi rek waaye xam nga fole mawoo ci dëgg te dina yang wuy nak nag ci dëgg Ousmane Ajuma Sonko ñun takkandeer yi xale bi dañ ko samp ngemb ko Ousmane ku ko bëgg jam jalluma ma man mii ndeyam kuy mbinta tass gu jaabi e pour jotté the only daughter of the land I am di senegambia Ousmane adjuma Sonko tey Sénégal ngeen ngeen wone seen bopp ndaxte ba mu demee ànd ak gàngooram di dox jàmm rek mu am males ngir tàngoor gi rek ngeen jël ko comme arme ah non non ngeen a juum ñun takkandeer yi dañoo toog di leen xool ndëgam jàllu leen président Ndiémé mu jéggi ay missile jéggi ay canon jéggi ay bombe ñun ñu de ay doom sénégambien lañ pur la fi amone bu léegi du rir dañu ne yeer rawon dañuy dem di dik Sweet boote bo len ko soxla wori len ko sorew len am ngeen li ngeen wax bu dee coow rek ngeen bëgg am ngeen ko ak moo leen sut waaye doo leen fekk doomu mbër maa moom kenn takkul seen ci baatam mi Arfan Betis besir Sonko maa moom kenn takkul seen ci ay tànkam maa moom kenn jox takku ko seen jox ko ay sémil ne ko tojal Ousmane Ajuma Sonko dafa hérité of the blood of the powerful warrior te ñun ñii takkandeer yi dañ ko samp togg ma noppi ma de seen mbow ak seen coow dafa bari te yéen a gën a xam lu am dama bëgg ngeen calm down ngeen wàccee seen tempo dama bëgg ngeen calm down ngeen wàccee seen tempo ndaxte gis ngeen Gaston Mbengue ba mu toogee ci benn télé plateau mu naan moom su buggee massage rek dafay dem ci borom bëti sew yi mi wu. of course bettuma ndaxte ba ma gisee moom portrait am ñi def ko ci muséum bu caay na rek ma ne lan ma ko fa war a indi waaye ba mu génnee wax ne moom su buggee maase day dem ci borom bëti sew yi rek. réponse baa ngoog waaye sénégalais yéen a ñàkk jom ñàkk fayda ndaxte tey Gaston Mbengue bu tegee ay arénom xaw ma combat whatever mu dem ngeen dem feesal ko ay saalum jënd ay ticket ba pare mu dem toog konte xaalisam dem di ko jox ñeneen ñooñu ngeen ne ñooñu ñoo bëgg Sénégal ñooñu ñoo bëgg seen réew Ajuma Sonko Ousmane Ajuma Sonko ak bëgg senegal demul fenn gëm boppam wol boppam moo tax mu jublu ci ay sëram fa ñu teg business mu yokk fa jàppale leen donc bu leen di wax ci affaire de Sweet Beauty ak xabaar yi te bu ci wax bi àggee nag wax ngeen bëgg ku Binta Taasu Gujaa bi si na leen ci seen wax acca nañu dem ci Sweet Beauty yi léppay génn Sweet Beauty kese diva kuy Ndeye Khady moom dafa jël tur bi rek pardon ko mu def ko business utkaay waaye Sweet Beauty ak a yàgg Sénégal te baa di fa loloor di fa lëmbe Sweet Beauty kese ak a lëmbe Sénégal Ousmane Adjuma Sonko génnewul Sweet Beauté inauguré wul Sweet Beauté kooku dafa dem yokk di jàppale business comme nu mu bëggee ndeyam bëgg ay jabaroom jigéen day daan doole mu dem di jàppale ndey Xadi ci côté bu positif nag waaye comme bañ sa réew rek hypocrite gi fen gi rek sàcc bu bon bi rek fu baax fu ne la sénégalais yi dugg di yàq waye mun ngeen dugg fu nek di yak mais dafa am buntu yi nga xamante ne kenn du ko fëgg mooy ajuma sonko koku dañu ne nga taxaw ci geej nga seen lu nek ci biir senegal gis ngeen Ousmane djuma Sonko sen mbal munu ko japp ndaxte fiil caas boobu bu na ràbb mbaal boobu atémite créé ko sax ba am ràbbukat bu ko war a utiliser pour ràbb ko ndax mu mbaal ko def leen ndànk def leen ndànk Ousmane Ajuma Sonko na ñeneen ñi buggee Sénégal yuutum réew

koñ bint gu bi saa ay jógee fekk si lañ ci terrain boobu doo leen kontaan ndaxte bomb bi bu ñuy wàcc ay xodatak laay bañ di génnee donc calme leen calme leen bu dee suite boo tey ñu teg ko fii rek fa ngaarale doxatu gëléem fajar gi ku ci nekk bu dee da nga amee tension nga commencé calmer sa bopp jëlal say comprimé dès naa ndaxte man ku ma invité ci terrain dëgg ba ma dugg si fekk si leen ci man dëgg rek lay dox ak maa ko ñemee ragal ma ku ko génnee waaye su may génnee tamit ngeen ñemee accepté seen wax dafa bari ah seen wax dafa bari ay suite beauté fii Ousmane Ajuma Sonko bàyyi na ñaar jabar of course kooku suka ko neexee sa bàyyi ñaari jabaram dugg fu ko neex maasewu yéen de da a ruus parce que moom de di ko xool nga jiñ ko viol dafa wér kën assuré boppam te góor la xam nga xool ko ni da bañ ko ne xaan ma jiñ ko viol xale bu wér la ñaan leen ñu jiñ leen viol ñaan leen ñu jiñ leen viol xale jigéen yi di def prep di suma bimbawu ci internet ñoom genre ñoom mati trois pom ñoo xamante ne dañoo xat xam nga xat moo tax ma ci trois pommes bëñëm mi sa xajul ci moom ndax dafa fees ëpp gémmiñam Ousmane Sonko du mos a sumi Sonko mais xale bee dafa dugg li ñuy naan bukut kare du sumi seen tubéy bu leen mer yéen jigéen ñi suukoo di ñii di mbaw nii ah non non non non non Ousmane ajuma Sonko non du mos a sumi seen tubéy donc bu leen mer bu leen mer ngeen di jub di ko man mi ndeyam pare na nak day saf sap day saf sap mënu leen politique ñen mesin mais seen politique yëpp dafa salté di saga ay ndey jambour di yak der jambour ngeen amul dara du ndeyam ga toog Ziguinchor de Ousmane Sonko ajuma Sonko dafa am ay ndey ñun takandeer yi day saf sap mayen Ousmane mi, Sonko sap, mi politik fay saf sap ki ci politique na nga politique mais yenen yi ay fen ak di wax lula neex ci nit ki non dum ko setan pare na nak ñew na ci terrain bi fay saf sap comme lu di yele yele dañuy dem ci égoro ngoro ngay lan la lan la mom aju ma sonko kessé mom sa jóg ci sénégal né dama bëgg jël réew mi damé porter candidature da ngeen mësa dégg ko yi ñi wax ni sax yeen aju ma sonko sa mo leen gëna yew yeen parce que leen leen politique parce que so leen mënon politique ma sonko daf leen racine bu téye Sénégal la téye mooy jeunesse gis nga jeunesse ku ko fekki si nga kontaan am moom di liggéey ak moom mu wuy si la parce que moom dafa téye racine bu moom Sénégal mais yéen boo nekkoon ay nit ngeen xool ni ngeen def tamit ba récupérer racine googu yorul ay cartable di baatre fu nekk di puukare di hypocrite non xale yi ñooy def seen liggéey bopp. yéen boo leen amee seen i leader ngeen di ut ay solution xool ni ngeen de ba sénégalais yi tamit ñu am chemistry ak yéen moom dafa liggéey chemistry am mais yéen amoo leen dara li nekk seen bopp li may ne bête lecteur lu dul fi leen fekk wax gu ñaaw rek wala ut fu ngeen yàqee mais yéen Ndeye Khady sénégalaise la aji Sarr sénégalaise la Ousmane Ajuma Sonko sénégalaise la Sweet Beauté business boobu business sénégalaise la soo leen xoolee entourage bi yëpp équipe boobu yëpp gen sénégalais yi ci boppam ngeen yàq wax leen ma yéen kan ngeen di représenté ñan ngeen di représenté mais waaye nit ki bi ñu nee buri booy bëri wax day fekk nga muus nga yeewu fi nga tegee tey ci kanam ci plateau ñu naan la yow waxal lan lan la boo expliqué ñu naan ah am nga dëgg mais foo leen waxee rek ñu naan hmm, nit ñi commencé sigg di wàccee seeni i bët yi yeewu leen waay bëri wax am na. mënu ak xam wax am na dégg-dégg ratataati nekk ku nekk yàkkamti nga toog ci plateau wala ci benn si internet ngay bàyyeeku rek lan la lan la ay kuñ binta tas gu jaabi e jumpure tojete Ousmane ajuma Sonko e ña bekkee fu bekk la fu joow man suumi mi man sumimi kan wo sumimi o sanken wo sumimi ni manje ni mati ulikoke manu ite ujum pare pare beko jonkor jonkor ayri ni seli nga sitoyto man reto